jungle auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabiahum bi ihsan ila yawmi ddin mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi yëkkati nuyoo lislaam mu di asalaamualeykum di ko teg ci seen loxo ci ndigalul xalifa bi sëriñ Mouhamadou Mourtada Amar di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi lool te mu ànd ak wér di wax ne ren ji ñi ngi ci soixantième édition wu màggalu Gàddiyel sëriñ bi niñ ko waxee léegi boo ko yëgalee kilifa gi fi nekkal sëñ Tuuba ni nga ko daan defee waxtu wu nekk di nga ko yëgal le président de la république son excellence monsieur Macky Sall te waxtu woo ko ko yëgalee dinañ ci ànd ak administration bi liggéey ci liggéey bu mucc ayib dama toog ba mu yàgg ma ne administration beneen école la parce que xam nañ la gouverneur Mohamed Fall xam la gouverneur si xamaat la gouverneur Moustapha Ndaw xam la préfet Makan Mbeng mais koo ci ñam rek da ngay foog ne kii moo gën a ñaw loolu formation bu baax la waaye sëriñ bi ma lay wax ne lu amul seede amul président Macky Sall bu la yónnee le ministre Omar Gueye di ministre des collectivités mu ñëw teew fii ma lay wax ne ministre bu mën a liggéey a ngi nii yàlla daf ma baaxee mu nekk ministre des tourisme et des transports aériens ma nekk fonds de promotion touristique ànd ko ak madame le secrétaire exécutif mi ngi nii toog ci ginnaaw di madame ba Ndiaye mu ànd ak borom këram mu ngi ni toog sëriñ bi li ma njëkk a jànge ci moom ci laa xam ne keroog li nga ñuy jàngal ci biir këru diine ji loolu la administration bi di jàngale ndax lu baax benn la du dokki ñaar réunion bi ma njëkk a fekkee ak moom madame Dieynaba Ndiaye fekke na ko mu ngi dem mbuur am kenn ku yëkkati benn kàddu bëgg koo teg ci benn membre gouvernement mu freiné ko ne ko je ne préside pas une réunion où on s'attaque à un membre du gouvernement ma ne ah lii de lu baax la jàng naa ko dugal naa ko ci sama bopp ma dellu ca bind ba ma jàngaloon ca biir néeg ba muy man kaana yuminuuna billahi wal yawmil axiri fal yaqul xayran aw li yasmut bu dee gëm nga yàlla gëm bi bisu penc ba del wax lu rafet wala nga noppi ma ne kon ndekete temporel ak spirituel ñoo bokk jëmukaay lu baax lu baax rek la sëriñ bi bu ko président tànnee yónni ko fii du hasard parce que il va très vite boo ne ko un plus un du la wax égal deux dinaan égal trois waaye sëriñ bi ñun ñi ngi lay ñaanal suñu kàddu du bari parce que tey amuñu kàddu jàngal nga ñu wax nañu jamono day am fu muy toll foo nga xam ne wooral wax dafay gën wax waaye nag dinaa leen wax ne ñëw ngeen ci pakku Maulana Cheikh Ahmadou Bamba pakk bii duma ma ci sori lu ci gàtt rek laa ciy wax nekkul ci bërëb bi fële la nekkoon 1920 sa maam ju baax ja Serigne Gumba Asta nekkoon taalibe Serigne Touba jafe-jafe am bu ngeen ko yëree ci archive yi di ngeen ko gis 1927 dafa amoon feebar bu ñuy tuddee pes ci àdduna bi ci Sénégal yépp mu dem seeti sëriñam wax ko ko mu ne ko jëlee ko ca barab ba fële indi ko fii yónni maam Cheikh Anta rakkam ju baax ja jox ko ñaan na ko na ko fa def te def fa jàkk loolu sëñ Touba la moo tax ñun ñu ne Gadeyelle ci suñu stratégie de communication patrimoine de la Mouridia terre des Ansar fii sëñ Touba ko sos cosaanu Mouride la terre de Ansar nag ñi bàyyi ko woon a Munawara gunge yonente bi salaa salaam gunge sëñ Touba ñoo ko dëkki sëriñ bi daal suñu kàddu du ci bari sañcoon nga ñu liggéey ñu ànd kook njaboot gépp pas-pas bi taalibe xarit yi kóllëre yi kenn manquéwul kenn ku ci nekk fa nga ca waroon a taxawee taxaw nga ci kàddu gu mujj gi daal mooy ñi ngi lay ñaanal yàlla mu musal la ci cat te yàlla guddal sa fan barke Sëriñ